mel comme kuy axtu wala sax euh, kuy euh, wax euh, juge bi nak la war a àtte aussi sa sa dossier tey loolu est-ce que waruñu aussi remettre waat ñun ñëpp muy yow muy man muy keneen ak keneen ay question par rapport ñun suñu ay doxalin par rapport ak suñu ay homme de justice aussi. gis nga gis nga président su baax parce que ku nekk nu muy liggéeyee aussi. du wax lu muy Sénégal ni ko tëggee ni mu laloo. Sénégal ni ko laloo ni ñu ko ràbbee ni ñu ko tëggee président su baaxul lépp dara du baax. parce que amul kenn ku am doole bi mu am amul kenn ku mën a diran teg moom mbagg xëccoo moom à part le peuple mm-hmm. léegi nag foofu la problème bi nekk problème bi foofu la nekk en réalité Macky Sall moo baaxul mais la justice bu demee ba appartenir euh, à la rue pour ah. ne pas dire au peuple loolu mooy ñun si ban euh, république la nar a évoluer léegi loolu dañ koy laaj ki nga xam ne moom mooy moom mooy chef d'état le président la bi nga xam ne dañ ko fal fal ko bu fal bu jaar le Mali est là la Guinée est là gis nga seen dëkk yi nu ñu mel dafa am lu ko def vous souhaitez ça pour le Sénégal. xool ñun jàmm lañ bëggal Sénégal mais sànq wax na ne ne jàmm ju nekk ah des fois jàmmaarloo am na jàmm yoo xam jàmmaarloo moo koy joxe ak Macky Sall ak président bu mel nii ak ni muy def ak ni muy doxale non pour man moom sax xam na ni actuellement peuple bi rek ñoo ko mën a gérer parce que dafa dem ba naw layoo tootuñu faalee tootuñu dem ba fàttali ko fal léegi nag peuple ko ñun ñu ngi fi mm-hmm. léegi la sànq wax ne ko arrêté la mm-hmm. keneen ku taxaw kanam

di saaga xeetu lëmb naan nañ leen taal rey mu mel comme si dafa wax dafa ni rek maafa bi am na am na ñeex quoi. Mhm. comme sa xoolal ga moom pour ñoom c'est de la politique quoi grave tout est permis. Mhm. danger bi ci nekk loolu procureur moom si boppam bu fekkoon ni vraiment moom gëm na boppam nekk agent assermenté gëm boppam war na mën a ne non man sama honneur sax war ma may man may seetaan kaso ci li mhm. ni comme bu Thiat wala bu keneen ak keneen fii Sénégal lu fi yàqu Macky Sall la il est le seul responsable fitna bu fi am Macky Sall la amul keneen bu ko fi jiñ kenn. en collaboration avec Abdou Karim Kourouma <laughs> mais Abdou Karim. Abdou Karim ñu desandi ba tey si justice. Uh-huh. cette fois ci pour wax euh, wàllum euh, député yi député yi gis nga uh-huh. ne euh, fu mu toll nii seen wàllum immunité parlementaire levé nañ ko mu nekk jour boo xam ne ñu bëri sénégalais yu bëri dañ leen ko xaar mais gis ne le ministre bu yor wàllum justice bi kii di maître Sall. am na uh-huh. kàddu yoo xam ne yëkkati na ko ñëpp aussi taf seen gémmañ. ban jàngat gis après kàddu bi lan la lan la. lañu lañ. dañuy jébbal ñi nga xam ne mooy justice est-ce que kàddu yooyu boo ko yëgee boo gisee ki nga xam ne moo fi taxawal justice le ministre de la justice yëkkati ko yaakaar nga ni euh, dossier euh, yi nga xam ne moo incriminé euh, ñi nga xam ne mooy ces députés dina am benn justice bu sérieuse bu ci Pape il a quel âge je pense que sénégalais war nañu taxawaat seetlu ministre de la justice quoi ah, parce que man mboor tojaangi laa ko tudd ay toj toj rek lay wax ay toj toj lay wax non parce que il a quel est ce que nekkul di naax. a wér ah, kon donc day def lu ko neex rek parce que am na ci yoo xam ne pour man am na ci yoo xam dama jàpp ni naax la quoi wala parce parce que kii ni mu nekkee ni muy gérer dafa doy waar kii ay erreur rek lay wax kii ay erreur rek lay wax man loolu dama ko remarqué si moom kii saa génnee wax toj-toj saa waxee toj-toj lay wax. Mhm. parce que dafa ñaaw ci ministre de la justice nga taxaw naan bu desee bu nekkee si ñun la quoi. moom lan fay weer. un discours assez euh, non c'est pas il est il n'est loolu nag fan la jógee ba léegi mi ngi ko ne kii ak ba léegi mi ko ne di nekk di nekk nekk euh, ministre kan moo ko tab kan moo ko tànn def ko ministre kan mooy kilifa. président Macky Sall. fii wax ji yëpp wiiri wiiri jaari ndaari yëpp ci Macky Sall lay delluwaat parce que njiit su baax baaxulee réew moom mënut a baax <laughs> ñun loolu moo ñu sonal moo tax ñu ñëw jot ay nit dëgg valeur rek. di xeex yenn fexe ba alxuraan bi dugg ci daara yi xeex valeur dugg ci daara yi xale yi màggaale diine fexe ba c'est-à-dire loolu la xeex parce que ay Macky yi dañ nekk hmm. amuñu valeur Sénégal ba léegi teguñu ko ci loxo ay nit yu baax ay nit amuñu valeur amuñu lu ñuy joom dara politique bi da leen jaral lu nekk seetuñu seen diggante seen borom loolu moo ñu sonal suñu xeex yëpp looloo ko waral ah. loolu rek moo tax ñu jug di xeex parce que ñun politique tey man politique man je suis pas politique sax mais suñu demee bay bay taxaw di wax ci politique parce que dañoo gis ni au fait Sénégal ñun ñi nga xam ñoom lañ koy jox boobu ba léegi amuñu dara ci diine amuñu dara ci valeur gisoo ci kenn sax kuy toog sa conscience ne yow jox nañ pouvoir bu toll nii di nga ko layoo sa yow man xiyam jox nañ pouvoir bu toll nii lan nga def ci daara alxuraan yi lan nga defal église yi jox nañu pouvoir bu toll nii yow lu tax jàkka yi di fay administration bi amuñu problème yooyu lan moo tax jàkka yi di am problème yooyu doo toog ne xale yi kat man yow en tant que nit quoi nga xam ne yow yomal xam nañ lay yee yow xam nañ nga taxaw ñu a def yow woo loolu nga gis nit ñi naan ñu naan farmason nga naan yaa dugg fi àdd nga gis prostitution prostitution bi di gën a am doole lan nga ci jàngal xale yi loo xam ni c'est diamétralement opposé ak suñuy valeur histoire du xale yi xamuñ ci dara kenn jàngalul Sénégal yi Sénégal kenn c'est-à-dire loolu moom laa lay wax quoi yow li ñuy def yëpp mooy ni ngay def ba loo def ba agrippé wu ci pouvoir bi njaab Sénégal dafa am problème de moo tax ma ne kii nekkaat président Sénégal am na ngan di maamu problème parce que il faut parce que bu fekkee ni moom nekkul si yoon bii nii ñun dañuy xeex ak moom bu tëddaat ci tali bi parce que loolu mooy dimbali Sénégal am président bu ragal yàlla am président buy sóoraale bu am ay valeur bu am lu muy jomm am kersay parce que yonent bi xam nga xam ne njiit xam ne day yoon lañu Macky di dëgg nga xam mu xam ni ñu koy wax xool xam ni du dëgg moom mu wax du dëgg mu continuer di wax lu dul dëgg mu dem ba xam ne nit wax dëgg ñaata yoon la wax Ngom bi loolu yow njàpp dañu waxante dëgg quoi ñun Sénégal lañ nekk Sénégal am na nooy fooy am na nooy doxalee vraiment loolu affaire politicien ñoo ko waroon gérer sax même su fekkee ne rafetul ci sax politique sax loolu rafetu si waxtu maa nag président de la république ci bureau président de la république ay enveloppe mais il est aussi chef de parti aussi. Euh, maanaam actuellement bureau présidentiel la nekk foofu noonu parti moomu ko APR moomu ko palais présidentiel du kër ma kër kër du du siège du siège mais pourquoi enveloppe bi ñëpp jàpp la. mun na nekk lu ne ah. encore day comme moom day jël enveloppe dugal ko ba biir bureau présidentiel ak sécurité bi am ci Macky na nekk lu ne loolu nekk bu fekkee xam nga président ni muy doxee ak bureau président nu mu mel ak sécurité bi nekk ci président mu portable sax doo ko dugal foofu yow journaliste bu mag nga tey boo dem palais yow doo dugal sa portable foofu doo dem ci Macky doo dugal sa portable xam nañ ni xew li bëgg a wax mooy bu mu ñu yàpp quoi bu mu ñu yàpp jaay na ngorom rek jaay na ko koo xamante ni euh, moom ñoom ñaar ñoo yem mu jël xaalis di ko jox parce que lii lan lay insi lan lay jàngal jeunesse sénégalaise jaay seen ngor war leen war leen ko la mën a war pour am seen teranga bu leen jéem def dara xaalis kenn du ko liggéey dañ koy lijjanti jaay seen ngor loolu la Macky di jàngale moom muy premier personnalité bu Sénégal moom loolu lay jàngal jàngalaate jàngale nii ndax politique moom daa la wax bu ko bu doon siège u APR lañ ko recevoir jël benn membre APR mu recevoir ko wala moom mu dem siège ba APR APR ne man daal di wax jël discours man en tant que prés ko jox sa kanam Sénégalais la ko joxe et puis mais c'est de l'insulte lii kii maanaam kii Sénégal yëpp lañ saaga ñi. mais Karim xaalis bi aussi nañ ci rafet jox rek Karim gisum xaalis de enveloppe rek lañ gis. Ndiaye <laughs> yow daal da nga xam naa da nga bëgg jàppale sama waa ji. waaye xam nga <laughs> kii mënu si génn quoi. lii moom mënu si génn lii dafa ñaaw gis nga lii nii Sénégal gis naa seen wax bariwu si sax. Mm-hmm. mais coow lu yëpp ci lii la nekk. ci genre type de personnes yi nga xam ñoo nekk ci pouvoir bi. mais est-ce que benn instant aussi euh, on ne devrait pas remercier aussi le président de la République Macky Sall. Hmm? parce que aussi si euh, régnam aussi gis neen euh, wax ne carrément de soi-disant traîtres yu bëri tombé neen Sénégalais yi fu mu toll nii ñu ngi comprendre qui est qui aussi. mais avant d'être un traître là balaa ngay trahir ngay gis koo xam moom moo mën a trahir ah. moom parce que lu lay jeunesse ni ñuy dundee socialement ba pare fàtte buntu yëpp ku ànd ak ñoom ñu def la ñu dugal ci dynastie bi may la ngay kii am 4-4 ah, am ay possibilité passeport diplomatique mën wax rek dégg ay baatu tubaab toog ci télé bi mën fen rek léegi xoolal yow tu es am nga 4-4 madame Faye recevoir la nga jaabante dem président c'est que loolu la rek mm-hmm. léegi nag loolu moo tax après jeunesse bi ñoom ku nekk da ngay jéem a xool pour ñoom la politique c'est nga xam boo waxee Sénégal Sénégalais yi majorité bi ñu ci bëri dégguñu ngay wax nga mën a utiliser quelques mots yoo xam ne xam dafa xaw compliqué après jeex na nga baab soob sol sa costume après nekk nga ci rang rang noonu quoi rang boo xamante ni valeur zéro valeur zéro donc c'est y a problème y a problème dans ce pays là ab problème bu grave la Sénégalais am te rendre ñu compte rendre ñu compte su ma la déggee l' affaire des députés fan lay euh, mujj ci affaire Bougazelli comme fan lay mujj mu mujjee nañ du mujj fenn du mujj fenn te affaire député ëpp na deux députés. yaa xam nañ fi nombre boo xam ne ñaata député wax nañ ci député yu baree bari mais xoolal du mujj fenn wax nañ ci ay sept député expliqué ay ñoo xam ne dañoo créé ay femmes am jigéen yëpp am na si. yëpp dañ ciy teg seen tànk. du mujj fenn parce que ñun ñu ko séqal la en réalité. lii nag moo tax réew mi toll foo xamante ne ni man mënutuma lu kenn. man mënutuma déglu kenn lu dul mooy nañ fexe ba ñun ñëpp ñu booloo boole suñuy force jëlee fi pouvoir bi ñi fi nekk baaxuñu doxaluñu lu baax keneen ku fi ñëwaat xam ne ñi fi jógoon jëlee fi ñi ñoo fi nekkaat di la xool on vous a à l'œil. mais Abdou Karim euh, je suis d' accord avec vous euh, Sénégal fu mu toll nii mun nañoo wax ne euh, kenn xamatul euh, kan mooy kii mais euh, est ce que yaakaaroo leen ak acharnement bi pour ne pas dire euphorie bi nga xam ne yéen activiste yi bien vrai c' est pour la bonne cause da ngeen koy dem si seen ay lutte parce que gisoon leen aussi jamono 23 juin ak ce ticket présidentiel bu président Abdoulaye Wade il fallait que à tout prix à tout prix kii di président Abdoulaye Wade quitte te est ce que heure boobu du leen dal si kii di président de la République euh, ba ngeen tànn aussi la mauvaise personne. comme on le dit le sénégalais mun na sanctionner mais pour mu élire son euh, le meilleur président aussi ça pose problème. tey kenn est-ce que Abdou Karim exigeant la woon wala les autres activistes hmm. exigeant neen ak ñii nga xam ne ñoo prétendre aussi euh, doon seen ay président parce que du côté de l'opposition aussi nekkul ay saints aussi ñoo fa nekk. cap de Karim dëgg la pour am une personne bu mel ni Ousmane Sonko. ah bon waaw xam

am ay terrain yu bari yu mu sàcc jaay ko am ay milliards ci compte am am ay étage kër yu baree bari def ci ay ñeenti jabaram kenn du ko xam doo ko xam du ma ko xam mun woon ñu sàcc ci bi jox état état politique dérangé wuñ kenn i la moo ko parce que dafa ne moom dafa bëgg ñëw dimbali Sénégal ak ay valeurs yu nekk si moom il nous a fallu beaucoup de temps pour am koo xam nit ku set la quoi koo xamante ni mënoo tane. il nous a fallu du temps pour gis koo xam day toog jël discours Thomas Sankara di ko wax. est-ce que ñun dañoo dañuy taxal dañuy ko impérialisme wala dañoo war a xool aussi ku gën attention munoo ku gën lan moo gën ngëneel bi mooy ngënal Sénégal gënal Sénégal gën-gën bi ci Sénégal la mooy lan nga bëggal Sénégal. Mhm. parce que discours yi Ousmane Sonko di wax nag vraiment wax dëgg yàlla ñun gis ñu kenn benn candidat bu ko fi waxoon ñi fi falu yëpp dindi impérialisme taxali ko tubaab bi fexe ba français yi ñun ñu fexe ba li ñu am si ressource naturelle ak minière ñu mën koo jëriñoo fe c'est-à-dire génn ci ay français fa discours yooyu noonu ci Thomas Sankara nañ ko doon déggee mosoo gis benn homme politique bu osé taxaw wax loolu mosoo ko gis ñuy def manifestation góor jigéen nga ñëw ñu ne manifestation góor jigéen bu ñu koy def wax waxuma la sax waxuma la Macky Sall de préfet de Dakar sax du ñëw waxuma la sax préfet policiers yi sax duñu fa jeg xam policiers dañu sax ndax bañ nañu sax tubaab bi gis ni tuuti sax état bi xaw na jàppale ñuy manifester ba policiers ñaari policiers nekkoon nañ Ousmane dafa ñëw ci manifestation bi dans l'histoire du Sénégal mosuñu am homme politique bu boo xam ne xoolal dafa taxaw ne moom du franc-maçon quoi ñu koy jiiñ ay léegi ñaan salafiste la wala murit la wala ndax diineem cest à wax quoi dañuy wax te yàlla rek tax man kenn yoru sama dara man yàlla laa gëm mais dama wax yàlla rek a tax quoi tey ni ma koy défendre nii moo tax suba su ma gisee mu def naka sul noonu man dama koy rentré ci saa si duma ko may dara parce que pour man moom dafa nekk koo xam ne a taxawu dafa la ci ne il euh, de la situation mais euh, euh, euh, il faut aussi savoir que Ousmane Sonko musul gérer état. Mm -hmm. mais domaine bu mu nekk ku xam foofu la si. impôt et domaine. Mhm. da ngay wax aussi li nga xam ne mooy cadastre ku wax cadastre da ngay wax wàllum lotissement urbanisation nag mais Ousmane Sonko on l'entend jamais aussi euh, pointer du doigt magu yi nga xam ne dafay am si terrain yi. si wàllum euh, ak diggante impôt euh, impôt ak domaine ak tamit citoyen yi ak ñi nga xam ne ñooy mairie aussi est-ce que tey ku mel ni Abdou Karim. Euh, non c'est pas la même chose loolu c'était c'était un domaine privé. Mhm. parce que man dama lay wax par ak lotissement de ah, terrain yi nga xam ne da voilà ñu koy géré ak tamit inspecteurs yeeg nanga parce que xam ne mhm. ils sont dans le milieu on mhm. sait comment ça se passe mais man voilà peut-être je suis très exigeante avec Ousmane Sonko comme ni nga ko waxee

te nekkul président nañu waxante dëgg rek li nekk ci kawam ci kanam dafa bari. mais bay sa wéy non xaaral même ma ñëw. bay sa wéy tànk même ma ñëw même ma ñëw. liggéey bu nekk problème loo gis daa am temps daa am jamono man certes je suis d' accord avec vous ah mais Ndiaye dama lay ñaan fàttali kooku. mais Abdou Karim peut-être peut-être dina saan émission bi. mais Abdou Karim parce que man euh, voilà peut-être les gens vont dire que Ndiaye euh, dafay chargé à chaque fois Ousmane Sonko. Mm -hmm. Euh, peut-être su ma amee benn sympathie Ousmane Sonko laa ko gën a am si kii di président de la République mhm. Macky Sall mhm. mais comme ni nga ko waxee il faut que l'on soit aussi exigeant ak ñi nga xam ne ñooy aspirer à diriger ñu mhm. euh, vous me comprenez yow euh, ba ki nga xam ne mooy kilifa ton frère activiste ba mu defee loo xam ne naka sa dul noonu bokk nga si ñi nga xam ne dañoo désolidariser wu ñu ñu bëri comprendre mais tu étais si sa logique mais je me dis que Ousmane xam ne dañ koy seetlu si xam ne ñoom inspecteurs yi ñoo koy def aussi léegi léegi léegi da ngay fexe invité Ousmane Sonko <laughs> soo invité nga laaj